Thank <laughs> you. asalaamaaleykum euh, donc man euh, Babacar Diène la tudd donc di président ASC Ngalam di euh, nuyuwaat ñëpp di leen remercier aussi waa Prestige bon gis nañu seen taxawaay aussi si biir Thiès di ñaan rek yàlla yàlla yokk leen donc yàlla moo ñu nattoo lii activité de jeunesse yi am yep ñu ci yëngatu quoi waaw donc soy xol euh, loolu lañ natto ça fait des années ñu ci si ci ASC bi dem donc ba nekk ci président yor ASC bi donc ren soy xol li ñu motiver deug dëgg mooy daaw euh, dañoo joué euh, coupe coupe du maire dem ba quart de finale ñu éliminé ñu ñu nous aussi demi-finale euh, zonale nous éliminons nous ñu demi-finale départementale aussi nous éliminons nous ba aussi demi-finale régionale nous éliminé ñu donc ren ñu décidé ni étape bobu ñu donc euh, il faut ren ñu jëm ko dépasser loolu mo indi aussi recrutement yi ñi def quoi malgré que pratiquement 90% jour yi ñu yoroon ngi fi bon si après amane nañ 17 sept arrivés yu ñëw et puis c'est des joueurs de talent yu ñëw quoi bon donne corriger tamit dara lo xamni nit ñi dañ koy faral di wax souvent te bon <laughs> nekul dal moy euh, problème ngalam pétrole bi xaalis xol yooyu yooyu yooyu amul pratiquement sooy xool euh, jour yi ñu fi indi montant yi ñu leen indee du dara li tax ñu ñëw rek leen la mooy euh, daaw dañoo gis suñu parcours nu ñu def donc loolu moo leen fi indi quoi mais du leneen quoi. waa Thial ñëpp nga naan Alioune Sall moo fi ne Alioune moo nekk ngalam. ngalam yaa ngalam manqué wul dara pétrole am na gaz waa ngalam it wax. bon c'est-à-dire suñ ne aussi yooyu suñ koy wax aussi man maa jiite ASC bi bañu bañu ma ci dara quoi. waaw depuis ça fait des années li ñu am yëpp dañ ko ci def lu ñu mën ak lu ñu mënul yëpp dañ ko ci def quoi loolu moom euh, am na yoo xam ne soo koy def pour sa koñ doo sax compter quoi waaw da ngay def rek. waaw xam nga man dama ni su doon euh, ay problème mystique du du ma jug di di wuti ay joueurs donc man sama affaire tegu ma ko si mystique quoi donc fi ñu ko teg dëgg-dëgg mooy football parce que lu tax li lay wan dans un premier temps dañuy dem wëri ay joueurs ay joueurs Les joueurs yooyu suñu ñëwee donc performance yi def soko beugé bëggee teg naan la mom yaa nax sa bop quoi waaw kooku moom su dee ay équipe yu koy def aussi ñi ngi nax sen bop ñun soy xol suñu objectif nekkul di di football par exemple pour gagner ben équipe non ren dañu ñëw pour gagner ben équipe ñun suñu objectif lén la ren moy dañu bëgg au moins dem final départemental jël ko waaw depuis le depuis daw bi ñu bi ñu toogee daaw bi nawetaan di jeexee la ñu toog ni loolu lañ bëgg té loolu soko bëggé donc liñu def ni lañuy def bon nit nak mom ñun ñëpp dañuy sàkku rek wa donc li ñu li ñuy jéem a def def nañ ko mooy wuti nañ joueur wuti nañ coach hmm? bon côté mystique bi ngay wax aussi man souvent suñ koy def aussi dañuy aar jori yoyem ñing koy def donc gisuma euh, di ñaan rek leneen li ci des moy tok xaar ñaan yalla lum ñu may rek ñu jël quoi diko ñaan nak aussi suñu objectif moy li ñu bëgg moy dem euh, jël jël euh, départemental bi yalla defaral ñu ko loolu da moy suñu suñu objectif ren quoi don remercier aussi en même temps coach daw bi muy su nga xamanteni ne ren ba légui mi ngi fi peut-être beaucoup de gens n'ont pas compris lu tax jëlaatul équipe bi donc il faut ma leral ko fi Gawsu ba légui mi ngi si équipe bi mais aussi dafa dem ba yégal euh, Seneps donc soy xol du am temps donc euh, manque de temps boobu mom la njëkk tok ñu waxtaan mu ni ma moom du am temps du mëna tok ban ak yoy yëpp donc lool motax ñu wuti benen entraîneur entraîneur boobu ñëw mais ba dem rek mi ngi won fi sax entraînement quoi suñu match yëpp da ci japp ak yoy diko remercier bu baax quoi mom pratiquement soy xol doomu ngalam la quoi

waaw ah, pap pap ngalam sa sa sa sa koñ la te su doon suñu sago aussi nga ñëw euh, jege ñëw jàpp ci donc loolu daal laa doon lancé appel si pap pour mu ñëw quoi jàpp jàppale ñu si ASC si di sant ñëpp di di gërëm ñëpp wasalaam. vraiment ku lim da ngay juum mais moom foog ñu lim ko.

donc président bi mo tout, mais staff mon nek ci donc di nous ñuy aussi si ci di aussi tek lepp aussi parce que le lu du donc comme nous ko waxe rek dañuy ñaan objectif ñu atteindre ko moy que lepp lu ñu Nous daw ñu gagner ko remercier aussi di remercier président aussi di remercier supporters yi remercier ñep rek remercier d'abord euh, prestige euh, ci euh, recouvrement bi muy def parce que euh, sportivement gox bi da koy soxla mais d' abord pour revenir si le président wax rek moom mooy que équipe bi dafa tolloon si situation boo xam ne daaw dafa am fu mu yemoon alors foofu mu yemoon nekk nekk mu nekkoon loo xam ne lu rëy la mais nous bu souhaiter souhaité ren jii jéem a projet boo xam ne équipe bi dafay dépassé fi mu ce euh, Dépasser fi mu ne moom mooy que ñu am une équipe performante euh, une équipe euh, déterminée à à à vaincre à vaincre ses adversaires et dans la plus grande sportivité ñu ngi remercier aussi entourage bi nga xam ne moo Dangalam euh, Moussa Dia wax nos surtout des anciens joueurs en l'occurrence du Nassif al muy Khadim Diop Bamba Diop on Bekay Gadio qui qui ont beaucoup prouvé dans le jeu aujourd'hui qui sont derrière de participer vraiment avec une participation très franche euh, à part ça euh, euh, la masse du quartier nous les félicitons di demandé daal di ne que ñun ñu pétrole comme ni ko ni ñuy waxee mais waxante dëgg moo nekk ci suñu biir waxante dëgg xam lu ñu bëgg xam suñu quartier nag naka la jéem a développer le sport au niveau de Ngalam Ngalam est un grand club dafa dépasser fu mu war a nekk moo tax nous avons projeté euh, cette année de faire en sorte que ñu am une équipe boo xam ne dañ koy tudd ci fépp euh, nous avons une sélection de joueurs pour mettre l'équipe dans de parfaites conditions. Le président, nous remercie remercier encore une fois de plus. Il n'a aucun effort de pour que l'équipe que dans de parfaites conditions. Euh, je ne cesserai euh, de remercier encore les joueurs et le staff que nous avons. Merci beaucoup. Yann Sela, entraîneur Galam FC cette année bon j'ai fait des passages si vous voulez mon Dougou de goût, dans Africa Nekon Aska Espérance j'ai fait pas mal d'équipes mais Rennes, Nangui, ngi ah, bon euh, on est trop ambitieux mais chaque fois l'objectif c'est de gagner le prochain match on a joué 4 matchs deux matchs coupe Yaldef, on a gagné nañu ko Il a joué deux matchs championnat en une victoire contre les 4-0 deuxième match fini match nul bon sinon c'est boobu la ñu nekk di préparer suñu prochain match demain inshallah contre Magadan ñaan yalla suñu boom jox ñu ndam que cette année ça va pas être facile parce que tous les équipes passent sa valant hein. l'équipe bi gëna bëgg bi gëna a liggéey bi gëna a computer inchallah allah gagné cette année bon ñu ñaan yalla suñu boom dafa ñam ren parce que soo xoolee daaw AS Africa la comme ni le ko mais c'est une équipe boo très ambitieuse que j'ai eu à raconter l'année passée muy à Ngalam euh, si cas de finale coupe la gagné leen mais vraiment ils ont une très une très belle équipe un très bon groupe cause pour laquelle ren bi ñëwee seet si j'ai pas hésité jël leen di ñaan yàlla suñu bopp def ko ñu dam incha allah loolu lay ñaan yàlla bon aussi di féliciter aussi l'administration mooy les dirigeants bah, qui ont ménagé aucun effort pour la réussite, pour sous réussite Rennes, bah, qui ont mis tous les moyens pour nous réussir, de, de supporter, de, comment dire, de remercier aussi sous nos jours, aujourd'hui aussi un bon groupe, aujourd'hui Ligue 4, de remercier également les supporters aussi, nous avons fait, nous avons fait, nous avons supporter de l'équipe parce que nous avons fait quoi. Alhamdulillah, merci beaucoup.